jëlee non non c'est une bonne révision li mu wax dafa leer. c'est onze ans pour pour nangu li la nit ñi doon wax baaxul baaxul. nga xam le pôle finance de justice financier c'est un très bon mécanisme parce que li yeneen juridiction yi am la am. Mhm. tu as le parquet financier. Mhm. tu as euh, le collège des juges d'instruction. financier tu as la chambre de jugement. Mhm. la chambre d'accusation. la chambre d'appel et des assistants de justice yu indi seen xam-xam parce que ils vont travailler sur des dossiers qui ne sont pas de leur spécialité donc c'est un bon c'est une bonne juridiction et ils ont compétence sur tout le territoire et ils ont l'exclusivité des affaires touchant les finances le détournement de deniers publics c'est-à-dire même un procureur wala benn juge d'instruction buy instruire benn affaire ba gis ne que dafa laal ci détournement dafa war a déporté wu jox ko le parquet financier. Okay. donc c' est un c' est une mais loolu c' est est bu fekkee ne xalaat bu bees la ça veut dire qu'on est capable de réinventer la roue loolu du xalaat bu bees. Hmm. c' est ça une juridiction normale. Mm. maintenant man moom la moo tax ma ne la exposé des motifs yi xamoon nañ ko en 2012. bi Abdou Diouf di créer CREI yi peut-être que mun nañ wax ne que dëkk bi tolluwuloon foofu mais Ablaye Wade bu ñëwee peut-être xoolu ko activé wu ko intéressé wu ko mais quand quelqu'un vient qui l'active et on dit que malgré les efforts de la CREI on n'a pas pu atteindre les résultats escomptés mais xamoon nañ ne que duñ ko duñ ko jot xamoon nañ ko et il y eu des mises en garde il y eu plein de choses li la CREI a été une épée de Damoclès sur la tête de certains Sénégalais. waaw ñu xam sax. am na ñoo xam daanuñ nelaw ah. mmh. l'ancien ne nga foog ne bàyyi nañ leen bàyyi wuñ leen woon de. chaque ñu fàttali leen ne que <laughs> boo naan miig rek. <laughs> ñu loo ci gis résultat ñoom ñëpp daanaka. ñoom ñëpp dem nañu fekk ci non ñi ñi créé kii woon tegoon tegoon yëpp. mais dans dans dans xam nga dafa am loo doon proposé sànq par rapport à la justice mooy la la le juge des libertés. dans la dans dans la composition est-ce que waruloon am le. ci c'est la chambre d'accusation en réalité mais la chambre d'accusation n'est pas un véritable juge des libertés parce que la chambre d'accusation c'est une première cour d'appel. ok ah le juge d'instruction bu jëlee décision sa avocat mën na dem ci chambre d'accusation wax ko mu casser décision juge d'instruction mais juge des libertés moom. moom warul nekk ci ay juridiction sax c'est c'est quelqu'un qui doit statuer mm-hmm. sur le fait que kii dañ koy yóbbu kaso wala duñ ko yóbbu kaso doyen